Euh, dama bëgg nga woon ma bayit boobu nga xam ne nii moom lañu bëgg a waxtaani balaa sëñ Ablaye ubbi xaside yi euh, kon nañ déglu son bi nañ déglu déglu waaleel son bi sax balaa ñuy ñëw ci euh, sara bi ñuy dem résidel si waat حسنى سعادة بمن في الورى خلق من قاد إليه صورا نفنا به للخديم كسفا sëñ Ablaye euh, sëñ daam officiel ñu bayit wi euh, jàpp naa ne boo ko xoolee euh, wax na ci tàgg yonent bi yàgg naa wax ci ay abyaat lim ko lim ko wommatal wa bimtidaahika arju haahuna wa gadan fawzan wa ribhan wa ridwanan yuxarribu nii matxu nabi matxu nabil matxu xayra musallin xaadalii waaye fii daf ni am daawoo waaw euh, bay du njëkk yi rek sëñ daam nga may nga may nga may woon am daawoo xaada salaaxa wal am na wa tawfiqa wal falaaxa waaw am daaxahu xam nga sëñ Tuubaa mhm. yàlla moo dogal mhm. dundam mu ni séddale na ko mhm. ci kaw bu fekkee at mi fukki weer ak yaar la te ñëpp maate nañ ñu la mu ni juróom benn yi dama koy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaatu wasalaam juróom benn ya ca des dama koy julli ci moom mm-hmm. tagg yi nag bi mu ci nekkee mm-hmm. nga xam ni fonction la ci moom mm-hmm. service la ci moom métier la ci moom liggéey la ci moom dinaa ko dinaa ko warlu tagg yoo xam ne kenn mësu koo tagg Moustapha tagg yooyu mu koy tagg nag la xeeti tagg yi ma ko tagg di ko bàkk di wax ngëneelam ci jaam ñi di wax ngëneelam di ko yàlla jox mm-hmm. di wax ay jikkoom yi mu gën a ñépp mm-hmm. di wax njàmbaaram di wax mm-hmm. fitam di wax bëggam yàlla di wax toroxloom di ko tagge xeeti taggin yu tumuranke mu ni tagg yooyu ma koy tagg nag moo ma wommatal man Cheikhul Khadim mboolem yi yéwén mboolem yi yiiw mboolem yi rafet mboolem yi baax tagg yi ma koy tagg moo may wommatal lool kon tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. defal na Serigne Touba lépp luy yéwénal mbir lépp lay mhm. tax ñu ni mbir daal am na réussite mhm. mbir rafet na mbir baax na mbir tubaarkàll nee na jot naa ca yooyee yëpp xeeti tubaarkàll yëpp jot naa ko te tagg yonent bi moo ma ko wammatam wal am na indil ma tam sécurité sécurité waaw am na mooy sécurité nga xam ne tey léeg-léeg nga gis kilifa gu mag ñu koy bàkk waaye pour moom mu xelam dal ci sécurité faaw mu ànd ay garde corps léeg nga gis kilifa koo xam ni ñëw te génn ci mbedd mi jaar fi te wutul ay garde corps yu ko dar. waaw pour bu musibay ñëw. Mhm. ndax tiit na di bu génnee dinañ ko dog ci mbedd mi. léeg-léeg nga gis koo xam ni fu mu toog du tranquille xel maa ngi gestu fa ne jàpp ni dañ koy fexel waaw amul sécurité tax. Mhm. yàlla sax bu nu delloo ci alquran dénga la mu wax ca suratul Quraysh. Mhm. li ilaa fi Quraysh. ilaa fi im rihlata shitaay wa sayf. falyaabudu rabba haazal bayt Mm-hmm. allazi at'amahum min juu'in waaye wa aamanahum min xawf kon moo leen indil am na mm-hmm. ci diggante li ñuy wax alxawf mm-hmm. lu ñuy ragal lu ne yàlla moo di indil am na mooy maanaam sécurité ba loo ñuy ragal du dal ci seen kaw moo leen di layal bu ngeen xiifee waaye tam moo leen di indil am na ba lépp luy lor du agsi ci seen kaw waaye nag am na bi jóge suñu borom rek mooy am na sëñ Tuubaa nag ni man tagg yenant bi alayhi salaatu wa salaam jox na ma am na jooju wa tawféex waaw jox na ma tam tawféex tawféex mooy sëñ Tuubaa firi woon na ko nee na ndax xam ngeen lu tawféex di wundu mhm. mu ni ko bëgg nañ koo xam mhm. mu ni bu la yàlla nattoo nga bëgg a wax ak koo xam ni dafa tëx mhm. tëx bi nga woo woo ko du la dégg ndax dafa tëx mu dema dema dema dem ba sori la lool lu mat ay bii kilomètres nga koy séen ca fond ba mënatoo koo woo rëcc na la te tey mënatoo jol yuuxu ba mu dégg la te sori na nga jaaxle lool naan lu may def ba diw dégg ma. parce que mhm. mënoo ko woo mu dégg la. nee na yàlla dogal rek mu jékki-jékki mel dafa am lu ko gaar rek mu gestul boppam <laughs> gestu rek seen sa loxo doon daje di ko woo. am lu ko ne ee eh, wuyul kii. waaw. Mhm. nee na loolu la ñuy firee tawféex. Mhm. tawféex mooy lu waroon a jafe lool. nga naan cëy lii ak a waroon a jafe. mu far yomb la lool ba mel dafa jàpp ne ñëw wuy si la. loolooy tawféex. wal falaaxa. mu ne nag kon man tagg yanantu bi may na ma yéwénu mbir. tàgg yarant bi may na ma sécurité tàgg yarant bi may na ma tawféex nga xam li may wut damay dëppoo ak moom dajeek moom waaye may na ma tam alfalaax mooy lan réussite réussite mooy nooflaay mooy texe mooy li may bëgg lépp ma jot ci kon sëñ Ablaye wal am na wa tawfiqa wal falaaxa mooy sëñ Muntaxa waaw wax na dëgg de waaw wax nga dëgg de mooy lépp sëñ Muntaxa yépp la boole nga tey sëñ mun taxaa moom <laughs> tey jii sécurité bi mu am kenn amu ko. déedéet ah ndax tey bu tël di génn rek waxuma la sax sécurité bi ko yàlla defal waaye tey la koy wër rek ci ay taalibe dare ko nu nekk bëgguñu dara xoos ko sécurité bi mu am rek feeñ na ci tawféex nañ moom dafa dafa dugg sax ca ci vocabulaire ñi ko xam ñëpp ci waxam. waaw ah, ñun dañoo am tawféex. wax ne tawféexi sëriñ bi rek waaw. nga xam moom dafay day dund tawféexi sëriñ bi soo ko gisee sax bañ na ngay njëkk a gis reetaan na reetaan boo xam ni reetaanu àjjana rek nga la lay def te dégg nga mu ni waa day gën a neex rek day gën a baax rek di gën a taw féex ba biir àjjana. Ah. waaw àjjana mbég mi waaw nga xam mbégte moom mooy sëñ Bachirou nag xam nga sëñ Bachirou moom mooy borom mbég mi. Mhm. borom taar bi ak mbég mi lañ ko doon woowee. Mhm. waaw sëñ Moussa Ka maa ngi nii teeru leen Bachir. Mhm. waaw doonay Bachiran wa Nazir. nga ne kon moom mbégte moomu la doon. waaye léppam di mbégte sëñ Muntaxa boo ko xoolee rek mbégte ngay gis ci kanam ngay gis bi waaw waaw xar kanam bi dafa leer naa ñu léppam mbégte la sëñ daam bayit bi ci topp euh, am daaho xaadar lana salaaha wal am na wa tawfiqa wal falaaha des na beneen bayit eh, moo ci toftalu eh, su ko defee sëñ Ablaay ñëw ci ñu door a ñëw ci eh, dalal waa mi ngi nii xusna bi man bihil wara mhm. xalaqa man qaada ilayhi suwara ko noonu sëñ xaar sëñ nee na am nanu ñun sëñ Tuubaa mhm. waaw waxin la nag mhm. am nanu waaw sëñ Tuubaa li ñuy wax voue de politesse dafa am ci làkk mooy xusna waaw xusna maanaam buy wax day dugalaale ñëpp yóbbaale ñu géew mhm. waaw ndax xam na ni képp ku jaar ci li mu bëgg mhm. te wàccoo ko bi mhm. jëfe ndigalam di bàyyi tere duggaale nga ci nuugoogu moo tax mënoon naa wax xustu xam nga mënoon naa wax xustu làq naa man sëñ Tuubaa waaye dañoo yóbbaale géew xus naa la wax làq nanu saadatan lan ak texe làq nanu ak texe muy lan réussite dem àjjana texe sunu lépp di texe ñu làqe ko nag bi man ci darajey ki nga xam ni dégg nga xalaxa bind na alwara dégg nga bihi ñu ngi am texe ci sunu boroom mi nga xam ni moo sàkk mbindéef yëpp ci daraja yarant bi lañ ko amee waaw maanaam daal am nanu ñun texe ci daraja yarant bi nga xam ni mbindeef yépp yàllaa ngi leen sàkk ngir moom ba pare man xaada ilayhi suwara moom yàlla mi nga xam moo woomat saari alxuraan yi yépp jox ko bi moom la ñu wàcceel alxuraan mi kon yàlla mi wàcce saari alxuraan yépp woomat ko jox ko yarant bi amee nanu ci daraja yarant bi ak texe goo xam ni yàllaa nu ko defal moom mi sàkk mbindeef yépp jox saari alxuraan yépp yarant bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. loolu la wax ci bayit boobu moo moo moo toftalu ci euh, su léegi nag euh, sëñ Ablaye si xam nga xam nga tey sëñ bi buy wax dara. waaw fekk na suñu borom jox ko ko ba noppi. waaw da koy am ba pare mooy teggin jooy suñu borom ni ko ñaan ko nag waaye loo am la ba noppi waaye koy jox teggin ni ko ñaan ko. waaw suñu joxante nañ ko ba noppi koy ñaan. yàlla damaa may ba noppi jox ma nag tegginu nag ko ñaan bind ko di ñaan waaye fekk na lu ko yàlla may la ndax moom nee na lépp loo xam ni bëgg naa ko suñu borom da koy wommat. ci jamono bi mu koy bëgg la ko yomat teg ko sama loxo. am fu mu ne avant koy bëgg sax. Mhm. dafa yomat ne ma fobal mhm. kon loolu lépp day. kon yow nan ngay firee huwa allahu yaxmini. waaw wa yaxmi jamia ma. li yaxtaara fi daarayni wallahu waasi. waaw allah moom ki nga xam moom laa jox sama yëpp muy yàlla. Mhm. ñu ne waaw. mu ne yaxmini moom a aar kon kaaraange sëñ Tuubaa kenn defalu ko ku yàlla borom. mu ne wa yaxmi jamia ma te tamit aar na mbooleem la nga xam ni li yaxtaara fi daaray ni moom la ma tànnal ci àdduna ak alaaxira maanaam lu ma yàlla tànnal ba ne ma may naa la lii tey da koo tànnal jumaam jee na mu mel képp ku jugoon ni jumaa jee sa yitte pour la ko jéem a yàq yaa cee amee defet ndax yàllaa ko aar est-ce que sëñ Tuubaa yàlla nee na jox na ko alxuraan képp ku jug di xeex alxuraan yaa cee amee gàcce waaye doo ca am ndam sëñ Tuubaa nee na yàlla may na ma barke boo xam ne dootul tuxoo ci man képp ku jéem a jug ngir jéem a gotti barke boobu na ci moom yaa cay amee defet dootoo am ndam ndax yàlla bi may may lan ma may dama koo sàmmal xam nga yow mën naa ñëw tey ma may la oto mhm. ñu dëgg mhm. mën naa yëkkati oto na sëñ waaye sequma ak yow entretien waaye nag yow entretien yaay videl sa bopp bu paanee yaay dépanel sa bopp mhm. kon mooy may naa la oto waaye nag sequma ak yow li koy jagal sëñ Tuubaa rek li mu wuuteeg ñëpp ne na yàllaa ma may ak kaaraange ba noppi lam ma tànnal tam ba nga xam maa ko moom loola tam yàllaa ma koy aaral nañ laa may nangam képp nga yem ci waaye la ko aaral man nag daf may ba noppi aaral ma rek la wa yaxmi jamia ma li yaxtaara fi daarayni waaw li ma ci àdduna ak alaaxira moom ma koy aaral ma aarale ni ma aare moom yàlla ni lay aare sama lépp li ma tànnal àdduna ak alaaxira léegi nag wallaahu waasiun yàlla mi ma ko defal nag mooy aji yaatu ci lépp ki ma ko defal man na ko boo dem ci loolu lu ko nit di amee rek ki ma ko defal da koo tëlee. waaw ko defal mën na ko. mën na ko di yàlla mooy ak yaatu joo xam dafa généreux. wala waasiw mooy ki ma ko defal mën na ko. waaw waasiw parce que day bañ kay commencé. question bi lay ko posé question. xam nga waasiw waasiw dafa am ñaari maana day firi ko yaatu ci lépp mais yaatu tam ci générosité ci joxe nga xam ne xajoo na ko waaw yàlla xajoo na loolu bul wax ah mais est-ce que naa nekk an ah, kay yàlla laa wax de ki sàkk jaam ñi te du jeexal dara moo ma may loolu kon léegi dugal na ñëpp ci ñu wéetal yàlla ci ni man na lépp yàlla tëréwul ci dara yàlla mi tëréwul ci dara nag moo ma defal loolu moo ma aar man Cheikhul Khadim ba ma am kaaraange lam ma tànnal tam ab nag alaaxira mu aaral ma loola tam ba kenn mënu ci yàq dara kon daal bala ngaa soree di poser question di laaj li sëñ bi wax ndax mën naa ne mu ne la defal ndànk ka ma ko defal nag man na ko waaw na ko am na ko mën waxul maa ko defal sama bopp ko defal sama dana yàlla defal waaw huwallaahu yaxmi nii waaw wa yaxmi jamiama li yaxtaara fi daaray ni question nag day am wallaahu waasiun waaw ah, <laughs> yàlla nag aji aji yaatu la nag aji xajoo lépp la te man lépp tëlewul ci dara di kookoo ma ko may boo ne sëñ Abdoulaye Diop Bichri ma defal li ñu ne la koy bisi nga daal di cay yokk président de la république day danañ xam ne logique na ah, ah, ndax tëlewul ah dëgg xam nga tey ji nga am naa laisser passer mën naa dem bërëb sàggam waaw mhm. ñun la ko la ko may tey xam nga man nit mën na jógee ci bitim réew di tukki si du am du am du am visa mhm. dañ ko defal self conduite mhm. waaye self conduite boobu tey bu fekkee dafa jógee ci président Macky Sall. Mm-hmm. Ah, c'est valide si saa si lay possible waaw ah la woon ñëpp de moom defal nañ ko ko moom day jógee parce que ko defal da koo mën nag. Mm-hmm. parce que Macky yilif réew mën na ko. dëgg la te gam ci nitu àdduna nga naan mën na ko parce que moo yilif nangam astama yàlla. sëñ Ablaye ma eh, eh, eh, est-ce que ñun murid yi ñun am nañ droit tiit ndax ñun am nañ droit ñàkk tawxiid ndax ñun am nañ droit ragal lenn wala ñu sàkku lenn dul sëriñ bi. ndax way wii nga njëkk a teg mhm. bay wii ñu njëkk a jàng mhm. wal am na wa tawfiixa wal falaaxa waaw ku ko am ci àddina réussir nga waaw ah, waaye li yaxtaara fi daare nii waaw ku ko am tawfiix nga tey tey ndax am murit war na googu sax maanaam war na doyloo lu dul sëriñ bi déedéet du nga murit murit amatul sëñ bi rek am murit dëgg mooy koo xam maam Cheikh Rafal nee na ci jës bul murit mooy koo xam ni moomul dara te dara du ko moom na ko sëñ Tuubaa murit mooy ku moomul dara dara du ko moom murit dëgg mooy koo xam ni du tànnal boppam dara ndax sëñ Tuubaa koy tànnal murit dëgg mooy koo xam ni bëgg bëgg sëñ Tuubaa day nekk dëgg du nekk ak cóob di nekk ay folklore ak ak ak dénga dégg nga mbumbeen ci biti déedéet dëgg lay doon sëñ bee koy gënal lépp boo jëlee sa lépp nag la yow amatoo sëriñ bi am ci sa bopp mais nooy ragale waratoo ragal dara ndax yaa ngi ci biir kaaraange sëñ Tuuba te sëñ Tuuba moo ne yàllaa ko aar topp di maxar yàpp kenn di tiit ngir lu lay jox ak lay xañ parce que naan sëñ Tuuba jox naa la suma lépp te sëriñ bi nag tëlewul ci dara ndax yàllaa ko téyel léppam te ko yàlla téyel sa lépp doo tële ci dara mhm. sëriñ bi ñàkkul dara ndax aji moom ji lépp moo ko may yàlla te yàlla du jeexal dara te nee na ko mboolem gëne li may naa la moo tax sëñ mbay jaxate mi dégg loolu dégg nga mu ni sëñ Tuubaa ngëneeli àdduna mhm. ak allaaxiraa ngi fi yow ku bëgg a jiituy moroomam te mu fekk si la kuy kër-këree ka wutuk mbaaxit ci waaju la mooy mhm. xamti la muy kër-këree kay wut te wuy siwu la du am la muy wuti mukk te ñëw wuy siwu la ni ko yaa woote ngir yàlla ñun ñoo ngi ku gàntu torox xam nga lu tax muy torox mhm. parce que yàlla kii la joxoon yow yaa woote ngir yàlla ñun ñoo ngi ku gàntu torox ndax fi mu ne sëñ Tuubaa am ndigal ma da dégg koy wax naan axbara ni rasulullah ku dul sëñ Tuubaa dangaa ngaa dégg koy wax amara ni rabbi yooyu wax dafa gaaw tuutiwul de yàlla moo a diggal yanant bi moo ma xibaar yanant bee wax ak man tuñ ak tuñ kii dafa am ndigal a tax ki am ndigal ci boroomam nga xam ne yow bokkatoo ci dara moom moo yor responsabilité bi ci biiram nga dugg sëñ Tuubaa ñi ne wut yàlla bay wax loolu da koo xam yàllaa ma digal la wax amara ni tax kon boo duggee ci sëñ Tuubaa waratoo ragal dara. Mhm. ndax dugg nga ci kaaraange ndax yàllaa ko digal mu woote. Mhm. dégg nga wax dugg nga tam ci mayam ndax moo ni barakati barakatan laa tan sarim mhm. taw si ati kamada di laa tan xarim sama barke barke la bu duutul jeex sama yaatuwaay amul limit kon da ngay dugg ci biir yaatuwaay googu foo yemale sa bopp ci yow la kon. ndax dugg nga ci sëñ Tuubaa barke bi tam foo yemale sa bopp ci yow la. man damay wax léeg-léeg ni ku gëm sëñ Touba dëgg-dëgg warta sumbulu tuuti. dañ xam ne ku gëm suñ Touba dëgg warul di sumbulu tuuti. ah waaw fi mu ne war ngaa toll foo xam ne milliard lay sumb. pourquoi pas sëñ Touba moom lépp yàllaa ko may lépp moo tax bëgg sëñ Touba dëgg di ko dund. Mhm. bu tiit mu ragal. Mhm. warta am ay problème ay nangam déedéet. bu ñëwee la immeuble la ñuy tabax nga ni waaw waaw mhm. maa xool ñaari weer fii naa ko defal ndax du nekk yow suñ tuubaa koy defal. moo tax sëñ mbay Jaxate yi li àdduna ak àllaaxiraa ngi fi yow mm-hmm. ku bëgg a jiituy moroomam tee mu fekk si la mm-hmm. ku ne gis nga moroom moo doon àndal ci bi ngay xale mm-hmm. ci ñun ñëpp tey jii ci yow lay ñëw di ñaan si te wóor la yow du xam-xam boo ko ëpp du dara sëñ Tuubaa mi nga ne rek moo tax tey nga mën a dimbali sa téeméeri moroom foo ci yem rek yow la neex moo tax sëñ mbay Jaxate ni li àdduna ak allaaxiraa ngi fi yow ku bëgg a jiituy moroomam tee mu fekk si la kuy kër-këree ko wutuk mbaax it ci waaju la mooy xamul la muy kër-këree koy wut te wuy siwu la yaa woote ngir yàlla nun noo ngi ku gàntu torox te yeggatil ba xolam sedd te nuy siwu la wootee la woote ku dul dem naari mujj ni hoo ba mel ni un waane kuy dem naari dégluwu la wàccal ka jëm naari muy tëx tëx lu naan duma gëm sëriñ bi ngir li mu xam-xam naa ko ngir gëmu la te yow ku lay weddi tey sax ak ku lay gëm yëpp tànnee fi waa penku ak waa sowu topp na la boroomi daaraa la fii raamal ak ay taxanal sa diine wér na bu koy leen kaar itam safu la koo xam ne tey <laughs> yow ak boroomi daara da nga topp sëñ Tuubaa léegi nag léegi sëñ Ablaye ci fokk foofu ginnaaw tawféex jooju ak kóolute googu ñun lan la sëriñ bi xaar ci noonu lu muy xaar ci noonu mooy kenn warta yab yoonu mu jaare ko ci noonu xam nga xam nga xam nga ngir ma yeggale question bi daf ne dafa wax boppam inni ilal ilmi wal amali su arabin waaw mu ngoog loolu aajo wali taaddu bi suxaali wa kammile ni waaw dégg nga li wax nun lan lañ war a xaaroo ci moom ci lim nu woo dégg nga woo nee man sëñ Tuubaa yenn rek laa ko aajo bu mu njëkk al ilmi xam kon murit dafa war a góorgóorlu jéem a jàng ci xamlu waaw xamlu waaye tey bari na ñooñu rëy na noo dëpp di jàng parce que léegi-léegi gis ku ñu ko yawa yawa yawa ba xam ni moom du moom mhm. ñun lay yawa Mm-hmm. saw tur siiw te mu wóor lan du yow parce que xamoo dara doo ubbi téere doo ubbi benn téere doo laajte question la nga waxoon ngay wax rek saa boo te rëy ngaa dem jàng le problème la te sëñ Tuubaa woote ni jàngi leen mm-hmm. parce que jàngay tax ngeen wax lu kenn dul dindi ci pénc mi mm-hmm. jàngay tax ngeen xam li ma bëgg jàng jàngay tax ngeen xam lan laay lan laay tere jàngay tax ngeen xam war ma ji ñuy àndeek man kon lim ñu njëkk a joxoñ ñu dem ci mooy al ilmu xam-xam kese ndax nit ki lu mu bari bari xam-xam te jëfee ko zéro. wal amal waaw mm-hmm. wal amal. Mm-hmm. nañ ca teg jëf ya nag. Mm-hmm. waaw jàngoon naan damaa war a am teggin. bu ma yem ci xam ko te du ma ko jëfe su ma rombee ko ma mag naa ko jox wor ma teggin su ma gisee koo xam ne maa ko mag naa ko yërëm su ma gisee ko mat maasel naa ko def ni ma def sama bopp. parce que joo waxoon na loolu mooy yoonu teggin. su ma gisee sëriñ naa ko wormaal su may nuyub sëriñ naa summi sama mbaxane naa làmbaale dara teg ko ci loxoom mm-hmm. du ma ko nuyoo loxo yi kese mm-hmm. yëpp yi teggi na yoonu murit mm-hmm. naa xam ne may wax ak sama sëriñ su ma toogee naa damm samay wóom naay sàcc ci xool bi bu ma ko fixé jàkk bu ma taalal di tànk wala te bi mu goog moo tax mu indi teggin teg xam jëfe ak teggin mu tegaat lan wali taaddu bi suxaali wa kammili nii mu ni nag su ko defee na yow yàlla da nga ma wommatal dégg nga lépp loo xam ni sama lu ma bëgg la nanga ma ko wommatal ak lépp lu may mébét nga matal ko waaw sama sama sama bëgg-bëgg sama mbir nanga ma ko wommatal jox ma waaye tamit nga matal ko sëkk ba mu mat ndax nga yéene dara te du mat waaw wajtahidu fi taati rahmani xaysu takunu bila udwaan na ngeen farlu ci topp yàlla seen borom ki nga sëñ Tuubaa la nekkoon kon murit kenn daq ko ko daq jàmm yàlla murit kenn waru koo am tawxiid gën koo am tawxiid mënta nekk ndax li sëñ Tuubaa jàngale ci tawxiid Mawaahibul Quddus dafa doy sëkk ci nekk plafond tawhid nga tax ku bëgg sëñ Tuubaa faw nga wéetal yàlla sa borom bañ koo bokkaale ci dara di ko jaamu guddi ak bëccëg ma war a nekk sa yitte ku bëgg sëñ Tuubaa faw ngay wéttali koo alquran guddeeg bëccëg di ko jàng te du am ab bara inil ilaahu min shirkin min shirkin ak nifaaq mhm. yemul ci shirk kese doo bokkaale yàlla mhm. waaye itam doo def ak naafiq waaye de wane ci biti loo xam nekkul ci biir di wax loo gëmul mhm. yooyu yëpp sëriñ bi da koo dàq mhm. boo xoolee ba tey wax na ci xasida googu mhm. raddatu billahi wa bi rasuli man xaalaful xaqa wa niltu suuli man sëriñ Tuubaa dàq naa dàq repoussé naa rejeté naa dàqu naa génn naa ci sama mbooloo ñi wuuteeg dëgg ñëpp képp ku wuuteeg dëgg gi yanant bi indi muy alquran ak sunna te may tuddoo na xam ni bokkul ci sama ñoon génn naa ko ci biti mhm. raddatu billahi wa bi rasuli man xaala fool xaqa mhm. bi ma ko defee nag waniltu sóoli ci laa am li ma doon laaj sama rek xam nga sëñ Ibrahima li li ngay li ngay li may li may seedee li ngay wax waaw euh, mooy euh, dafa boole ñett waaw daf noo joxoon yàlla waaw ne ñu góorgóorlu leen ci yàlla yàlla waaw te yonent bi la wàcc muy sunu nabi na ngeen jaamu yàlla topp sunna si yonent bi alayhi salaam ujaddidu tawxiida wal furu'a maa tasawufin waaw waaye dafa wëlbatikuwaat nag te loolu gën a leer ci jeexitalu midaa bi hëddayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi dikri maxtalaati wa gis nga loolooy mission sëñ Tuubaa la bayit boobu gaa yaa ngi koy romb di ko tëjee duñ ko xam hëddayta yow yàlla jubal nga hëddayta bi aqdi ci tawxiid aqd mooy pas-pasu xol bu dëgër koo koy tawxiid ba mu nee tawxiid imaana ngoo ngëm yàlla lu mu teg wa tasawufi loolu mooy lan al ihsaan yow yàlla jubal nga sama mbooloo ci tasawuf ihsaan mhm. wal fiqhi mooy lan mooy jurisprudence mooy lislaam kon imaan dugg na ihsaan dugg na islam dugg na ci benn bayit leen bayit laa wax bu sëñ Tuuba yow yàlla jubal nga koo jubal nag mu ne ayaal yi ak lu mu teg mhm. bi zikri bi zikri maxsalaati bi zikri zikri mhm. mooy lan mhm. alxuraan ko tudd yàlla foo toll maxsalaati mooy lan julli ci yenant qabil matxi matxi mooy lan tagg ko benn bayit indi juróom benn <laughs> la ci lare jamandoo leen waaw juróom benn fonction la ci lare moom fees bayit bee fees seetlu nga ko yàlla yaa ngi jubale sama mbooloo si yii nga leen di jubale aqdi aqdi mooy tawxiid wa tasawuf tasawuf mooy looy jëf nga génn ci àqu yàlla wal fiqi wal fiqi mooy ngay pratiquer l'islam bu leer nañ ñi tey dellu ci téere fiqi ayaali bi dikri mahsal koo koy defal la koy jubal mu ne ayaali sama njaboot kon képp ku bokk ci famille Sëñ Tuubaa di ko wootee fii la la teg mhm. bi zikri alxuraan a ngoog mhm. jullee ngoog ba tey ci zikri mhm. alxuraan a ngoog tudd yàlla ngoog maxsalaati maxsalaati julli ci yenantu baa ngoog matxu mooy tagg ko fële ca inna nii sax dafa ne waltu kammil aqdi waaw wa ilmi wa saayi warfail yowma kullaha waaw dégg nga loo wax léegi waltu kammil na nga matal aqdi sama pas-pas wa ak sama xam-xam wa saayi ak sama jëf warfail yowma nag na nga yëkkati bis ni ki tey nag kullaha kullaha sama lépp yooyu ma la wax yaa muayini waaw yow yàlla mi aji dimbal ci na nga ma yëkkati yooyu yëpp nga xam tey pas-pasu euh, képp ku ànd ak Sëñ Tuubaa pas-pas bu kawee nga waral waroo nekk ci di gëm ay xuraafaat da nga war am pas-pas bu kawe. pas-pas bu kawe. bu kawe nga war a am ndax da nga naan man ki ma àndal. pas-pas a tax mu wàcc ci océan Atlantique bi géej gi. dafa dogu dogoo tax mu wàcc ci géej gi. te sëñ Modou Xari Bousso moo ko. xam nga sëñ sëñ Ablaye wàcc sëñ Modou Xari nee na maag sëñ Mawlaay Bousso ñoo toog sëñ ne nettali ñu julli géej gi ñun ñaar ñoo toog sëñ Tuubaa ni ñu bi may wàcc ci géej gi booba madamu tubaab bi laay bañ ma laal ma ndax xam nañu ñoom xel ni ci bopp waxtu laa war a jullee te maa ngi jàpp muy jéem a yàq njàpp mi ñëw di ma teg loxoom may bañ nag waxtu wi raw ma di dàqanteeg moom moo tax ma gaaw bi ma jàppoo avant madame bi ñëw mu sànni der bi ci géej gi ne ko bu la bato bi raw loolu la ci daal cëpp ci géej gi. bu la gaal gi raw. waaw bu la bu la bu la gaal gi raw. toppanteel ak moom daal di cëpp. bi mu ko waxee sëñ Mawlaay Bousso ni ko kon nag Mbàkke comme maa ko déggee ci salaam mi nga nettalee ko sañ naa ko woy mu ne ko bisimilah sëñ Mawlaay Bousso daal nii. sëñ Mawlaay borom xam-xam bu mag daal ne wa fil sàllal asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raaki an xayra saajidi ndeysaan waaw kon nga xam lu leer nañ ko julli géej ndeysaan waaw wa fil yammi sàllal asra julli na ca tàkkusaan de sàllal asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raaki an xayra saajidi waaw fa la sëñ Tuubaa rukkoo fa la sujjóot ci kaw océan Atlantique loolu pas-pas la kon nooy ànd Sëriñ Tuubaa dégg nga te sa yitte du kawe. te sa yitte du kawe. xam nga lu tax ma laajee ñun ñun danoo am problème problème bi nag mooy danoo jaborise ak àddina. waaw léegi sax dañ ña ndax sëriñ bi tayam ju ne day gàccaal démbam. waaw defar na ñu mel ni ñoom Sëñ Ablaye ñii tey ñu ngi toog di leeral. léegi li am solo mooy boo daan génn ñun jàpp ñi wuñ ay jullit lañu. waaw danoo jàppoon danoo am jeneen yàlla ju dul yàlla. ñoom loolu lañ jàpp. beneen bi ci topp jàppoon nañ ne dañoo am jeneen yonent ju yonent. mais waxuma la sëñ Touba léegi de. sëñ Muntaxa bi mu fi toogee léegi li mu fi inauguré ci jumaa ak i jàkka fonde ko ci eh, daara gaa ñi bind ko ci kaamil kon gën nangu na ne julli leen benn léegi si Ablaay hmm. bi sëñ tubaa defee loolu ba noppi dafa natt yërmande yàlla waaw jàkkaarloog moom waaw ne ko falaa tuwaaqidhum bi ma laa yan xusub wala humo habilladi laa yan faw waaw yow yàlla ki ko laaj nag la ki muy waxal a tax wax naa la toujours sëñ Tuubaa buy wax ak aji màgg ji yàlla nu mu gën a toroxloo ndax xam na ni yàlla da ngay toroxlu ngay demee ci moom mhm. lu mu ko laaj it xeeb ko ndax xam na ni yàlla tëlewul ci dara te du jeexal dara dañ ngeen sëñ Saaliw ni su ma koy ñaan sëñ Abdoulaye ta wax na ko su ma koy ñaan euh, du ma ko jomba ñaan dara lépp laa koy ñaan ndax aji tab la ju dul jeexal te la àlla sunu borom joo gis ci alxuraan mhm. mooy la être la àlla yàqiin la ci ci ñi xam mu tasawifoon yi mhm. mooy loo xam ne c'est acquis ndax jaam moo lay mën a dig ba noppi faussé yàlla du faussé te yàlla jeexalul ci dara te moo ni taamu naa ko may ñaan te lu ma waaye ñaan ma may la te mhm. moo tax sëñ Tuubaa buy ñaan suñu borom noonu la koy ñaan yërmande mhm. yow yàlla dañu ko foofu yow yàlla tee ngaa bañ a jàppe sa jaam mi seen matadi gii xam na ni jaam day matadi ndax ba nga nekkee ab jaam rek la manquement commencé ci yow ndax nit a ngi làmboog fàtte nit mu ngi làmboo ak tële nit a ngi làmboog lekk nit a ngi làmboog nelaw nit a ngi làmboog naan nit a ngi làmbook sëy nit mu ngi làmboo dégg nga ak lompañ xam na ni doomu aadama boo xoolee passage am fi mu doore ba fi muy tëlee lépp ci tële la mhm. lépp ci fàtte la lépp ci juum la lépp ci di la kenn matul nul n'est parfait sax dégg nga kon sëñ Tuubaa nag buy wax ak sunu borom mu ne ko nag xamal ni jaam ñi nag yaa ma gën a xam ne jaam ñi yow yàlla mi aji xam ji umpale woo dara xam nga ni sa jaam ñii wax dëgg yàlla buñ la tooñee tam ak lompañ ak matadi dégg nga ak tële moo tax ju lay tooñ kon mhm. bu leen jàppe loolu mhm. sa xéewal yi itam boo ko téyee bañ koo jox sa jaam ni mhm. ni duma leen ko jox parce que dañ maa tooñ koo koy jox yow yàlla daf doy woo ko dara wala humu habil ladi la yanfa'u waaw dégg nga jox leen li nga xam yow du la jariñ li leen di jox mënu laa jariñ dara yow yàlla mënuñoo may milliard ba mu jariñ ko dara fala tuwaqidhum bima la yanquduk waaw bu leen jàppe dégg la nga xam ni wàññi ko na ci war ma ñu la war a jox wala jaam bu ñu war a def. ndax daa leen bind ci matadi. daa leen bind ci matadi àq ba ñu la joxul bu leen ko jàppee. wala humo habiladi laa yéen. waaye nag na nga leen jox la nga xam ni yow mënulaa laa jariñ dara ndax boo ko téyee amoo doom amoo soxna amoo njaboot goo koy jox doyewoo ko dara te mat nga sëkk sa bopp te ku jur yow soxlaal na kenn yaa yow kenn dara soxlaaloo kenn dara loo koy doye kon jaam dafa mel ni ku sol benn toos benn mm-hmm. robe d'avocat mm-hmm. taxaw di di plaider mm-hmm. daa mel ni ku nekk ci tribunal suñu borom bi di plaidel créature yëpp di leen ñaanal njekk ci xam nga fa lee def ni yow ma laa yeen famu maal wala banoona ilaa man xatallaha sëñ bi ne ko yallaahu yaa mu xallibal xuluub bi xallib xuluubanaa anil uyuub yow yàlla yow mi nga xam ni yaa mën a fekk ab xol nga wëlbati ko ba mu dem fa la neex yow yàlla maa ngi lay ñaan sunu xol yi wëlbati ko bu fekkee da ci am ay ayib yu ci nekk su la neexee nga wëlbati ko ba mu mokk rumbux nga def ci lu leer nañ dootuñu am benn ay man na ko tëlewul ci dara waxoon na ko nee na nee na musaade de euh, du ma ko du ma du ma ko yedd waaye ba ko sañoon a yedd moom sëñ Tuubaa keroog ba mu nekkee ci biiru Xalsoom la mu xari géej ca Firaaw na di lab mënoon na koo jël rek yatu ngëm dóor ko ko mu daal di tuub daal di tuub moo gënoon a simple. ndeysaan mhm. loolu la ko wax moo gënoon a simple. kon tam man Cheikhul mu xam naa ni. Mhm. mbindeef yii la neexee ñoom ñëpp ñu jub xocc. waaw kon yàlla sa muggal xajul ci kenn. waaw sëñ Ablaye xale xale bii ngay dóor nii. ko mën sa morom waaw sa jaam la. Ah, rek sëñ Ablaye wàcc. waaw wàcc waaw ko <laughs> kon nag intervention la ñu ñaanal ci suñu borom. <laughs> ak ak njéggal pour sunu sunu borom yërëm ñu ndeysaan te bañ ñoo topp ci sunu matadi ndeysaan ak sunu bàkkaar yu bari ndeysaan ndax yàlla wax na loolu sax ah mhm. wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha mhm. waaye nag na rabbi la gafurun rahim mhm. fële mu ne wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha waaye inna al insana la zalumun kafar yàlla nee na su ngeen doon lim li ma leen defal ci xeeti teraanga xoola sëñ xaamidun soriwul bëtu doomu aadama mënu koo fay waa xam nga ni bët dara mënu ko faj de waaw bala nga ko xam ne muy xasan. nit ki boo déggee ñu ni ko xamal sa bopp boo xamee sa bopp xam yàlla. xoola sa bopp bi nga yor bopp di doomu aadama bopp bi nga yor. ñaata tuyoo ci nekk. <laughs> sa bopp bi nga yor. xoola sa ñeenti tuyoo yi nga yor. yaa ngi ñeenti tuyoo. ba ci juróom sax. yoo xam ni bu ci ne li muy génn boog teg moroom mi li muy génn. sëñ Hamidou xanaa xamu xamoo ñandaxetu doomu aadama mm-hmm. dafa ritax mm-hmm. tiflitu gi doomu aadama dafa lewet mm-hmm. ndoxu nopp dafa wex xat ndoxu bët dafa sax xorom te ñoo bokk benn màcc ñoo bokk benn ndaa bu ñu génne te lu ne am na xikma bi ci yàlla denc te doomu aadama xam ko mu ngi dox di dem rek xam nga lu tax mu jël ndoxu bët def ko mu saf xorom parce que xef yi nga gis xef yi ay rasul xef xefu doomu aadama boo ci defoon beneen ndox bu dul ndox bu saf xorom xef bi day kole dégg li wax day kole mu defal la ci ndoxu xorom boo xam ni moo la koy mën a redresser ba xef yi di xef di yéeg a ko wàcc te bala ngaa xam njariñu xef rek nga tàmbalee xool xanaa xamoo weñ amul xef weñ weñ waaw weñ ji dinaa amuñu xef amuñu xef waaw moo tax foo fekk seen loxo yi seen bëri ñooy xefal seen bopp dañuy yëkkatee ko wàcc rek doomu aadama la bëgg muy xef ndax dafa teral doomu aadama mu bëgg nag xef yooyu di yéeg ko wàcc ay rasool lañu mu wutal ko ndox mu saf xorom ngir mu koy redressel loolu am na xikma bu ñu ci denc lan moo tax ñandaxetu doomu aadama tax xanaa xamoo yuuru doomu aadama ak baxi bakkal dañoo communiquer yuur boobu ñu def ñoom ñaar benn nokki doomu aadama moo gën a foor camion deux cent tonnes benn nokki su fekkee nag léegi dafa dafa dafa communiquer ak yuur te deret nekk ci sa benn nokk bu nekk war naa génn lu minimum litre di deret mhm. yàlla bañ deret ji di tuur di génn léeg-léeg sax buri dal la mu bañ deret jooju di génn mu jël ñen xet taxal ko ngir mu koy dressé du génn mhm. xanaa xamoo tiflit dafa lewet bu fekkoon tiflit lewetul dafa saf sàppakaani ñam woo tiimati day safkaani te am na ñu bëggul kaani nag. baaxul seen ñu mu war a communiquer. ay mhm. am na ñoo xam bu ko defoon mu saf xorom. loo lekkate xorom lay saf saf yàlla jóg mu communiquer ak lépp mu defal la ko mu lewet doom loo lekk mu adapté ko xam nga ni ndoxu euh, nopp dafa xam nga lu ko waral nit bu xasee ba tëdd guddi amul kubéer nopp amul kubéer te gunóor ak xeeti gunóor yaa ngi wiraam di daw man ngaa nelaw guddi ñu bett dugg sa nopp buñ ci duggee rek musiba am sunu borom wexal ko xat bu ci dugg bu signalé woo mu wex ci moom mu daw génn li mu njëkk a defal doomu aadama ci bopp rek munu koo fay xel mi door a ñëw. Mhm. dof man na taxaw sa wet sol yére yi correct feeg waxul mënuñu leen différence yi ngay jàpp ne rek yéen a yëpp waaye bu duggee ci waxtaan wi ci nga ne eh, kii de moom wérul xool sa montre tuxal jataay bi dem bàyyi ko parce que dafa dof yàlla nga ko xañ xel moomu di liggéey ci biir nga xam ni sax mala li la wutaleeg mala yi. mooy xel moomu philosophie dañoo wax ni lom est un animal doué de raison comme mala la waaye xel mi rek moo leen wutale yàlla may lam xel nga mën a xalaat bët bi di gis am na ñu dund ba dee xamuñu seen doom nu mu mel. Mhm. dañoo silmaxa ba keroog ñuy faatu xamuñu seen doom daa ñuul xamuñu daa xees yàlla may la nga xàmmee sa doom ci xale yi yému ceeg yow yàlla defal lay tànk kay doxi sa aaju am na ñu ko xañ. defal la wér gi yaram am na ñu tëdd ci hôpital bi mënuñoo jóg yépp di taw féex ju la wër def la ngay jullit am na ñu dëkk ci dëkk boo xam ni xamuñu islaam ba keroog ngay dee. Mhm. xamuñu sa diine duñ ko gëm mhm. yàlla defal la leeru ngëm nga gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. bokk sax lislaam ñoo xam ni tey nanguwuñu ko baax koo tudd ñu wax ca lu bon yow yàlla dimbali defal la ngëm koo xam ne nangu nga lépp lu yàlla dogal kon doomu aadama buy xool li ko yàlla defal mënu ko fay moo tax mu ni wa in taoddu niamatallahi laa tuxsuha mhm. su ngeen doon lim li ma leen defal ci ay xéewal mhm. du ngeen ko mën a takk waaye nag innal insana la zalumun kafaar mhm. doomu aadama dafa nekk tooñaa kóon boo xam ni fu mu toll day weddi boroomam di fàttali moo ko defal fële mu ne waaye inna rabbi la xafurun rahim yàlla nekk jéggalaakoon boo xam saa bu xëyee yeesalaat njéggalam ci moom bañ koo topp sëñ Tuubaa nag matadik doomu aadama googu mu xam ni lépp yàllaa ko defal te mu koy bokkaale mu bañ suñu borom duma leen te mu xam ni moom la suñu borom dénk mbir yi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu taxaw nag nekk avocat jaam ñëpp moo tax doo fekk mukk muy ñaan yemale ko ci ñoñam képp da koy yaatal lool bu nee almuslimoon yi lay dugal almoominoon almoxsinoon képp ku bëgg islaam képp kuy jaamu képp kuy rafetal yàlla na de ci ekk ci bu yàgg mu ni sax jaam ñi jaam ñëpp kon kon kon kon wala wala kenn ak sara yu bari yooyu waaw soo xoolee mi ngi leen di rappelé waaw wala ak sara wala kin ak sara naas yi waaw wala kin ak sarahum waaw waaw yëpp fàttali la cay topp ñaare waxee rek gis ñu dérivé waaw ñooy ëpp mbooloo toujours ñu nekk ci njub <laughs> toujours foo xoolee dérive di am rek fala mbooloo ma maanaam ñi xamul dara ñooy ëpp toujours mhm. foo demee da gis ña xamul dara mhm. ñooy ëpp dérive mhm. Ah. ay to ay gars yu xamul danaa fi daje def nangam. waaye diw ak diw de moom. dañ leen di génn ñuy exception ci nangam. diw ku rëyum xel la diw ku baax la. dañ koy seppi ci mbooloo rek. moo tax yàlla walaakinna aksara laa ya'lamuun. laa yashkuruun. waaw ñu sant li ëpp ci nit ñi. li ëpp ci nit ñi. dégg nga du ñu du ñu xalaat. waaw loolu moo tax ndax mbooloo la ñuy doon ñaari. dëgg la euh, jërëjëf euh, sëñ Ablaye ci leeral yooyu euh, ndax dafay dafay baax. Euh, sëñ Cheikh Sène dafay baax saa saa ñu dellusiwaat xam na nun ay jullit lañu ñuy topp sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañu dañ koo def nag ngir ki nu yàlla booleel loolu la nu joxoñ ujaadidu tawxiida déedéet euh, dafa waxoon fale ne inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa loolu jàpp naa ne ci loolu la mës di woote foofu la tegoon tànkam kon euh, bu fekkee ne loolu la jàngale ñu wax ko ci téere yi ku gisul yaa gisul rek waaye moom lii la jàngale ak jub ak bu baax sax saa na da gis doxin wi mu rax folklore waaye loolu du yàgg du ñàkk ndax dégg nga lii sëñ Ablaye wax léegi waaye yàlla bu demee bay wax ne walaa kin ak sarahum waaye wala wala kin ak sarnaasi waaw ku yab yàlla nag xamoo ki nga yab de te nit ñi dañuy dañuy dañuy faral di di dépasser borne yu suñ borom yi hmm. di ko romb kon ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne hmm. dafa wàcc moom suñ borom ñor ko ngir mu dimbali jaam ñi ngir ñu raw kon day mel ni liy ëpp si ñun mooy du folklore mi du fecc bi du dara waaye li ëpp solo rek mooy fexe ba topp li sëriñ bi bëgg li sëriñ bi bëgg mooy euh, yuhibbu rabbi taata subbaani hmm. yafrudukum bi jannati ridwaani wajtahidu fii taati rahmaani hmm. haysu takunul bila udwaani nag hmm. udwaani googu nag dafa yegg ci bu la sëñ Ablaay ne déet sëñ bi jàngalewul mu ne non sëñ Ablaay gëmul sëñ bi quoi dafa arabisant we ah, dafa kii kenn gën noo doon ni murit waaye sëriñ bi dafay jaadu saa saa ñu waaw parce que sëñ bi ku ko gëstu xam ko ku ko jàngit xam ko kon loolu lu am solo la te léegi sax alhamdulilah ba nga xam ne téere yëpp yi firi nañ ko ci français yi ci anglais yi yi ci langue boo mën a doon su ko defee nga mën di ci fan yi pour dëggal la dafa am soxna su nekk ba Amérique mu mhm. nga nekk maa ngi koy ziar soxna Bintu Diop mhm. nekk ca dëkk bu ñuy wax Cincinnati Ohio mhm. waaw euh, baayam sax sama kóllëre la day def liggéey bu am solo nag sëñ Hamidou soxna suy muuru sell lool ma gis ko day jël xasaayid yi mhm. ñaare day toppaat suñu pirin yi ñuy firi di ko teewlu mhm. di ci def liggéey bu am solo mhm. di ko traduire ci langue anglaise di ko tasaare ñu bëri di ci xam seen diin dëgg la ay soxna yu baax dëgg la soxna sa nag jamono yooyu nu jokkoo mu wax ma dérive yi am foofa ñoo xam dañuy ñëw ñu tuub dugg ci yoonu murit dem ànd ak ñu leen wax seen jëwriñ lañu te leen di dérivé nag mhm. di leen teggiloo yoon yi complètement mhm. di leen yombalal yoo xam ne lu war a jafe la mhm. di fekk yu sëñ Tuubaa bañ ñu koy dooleel ca ñoom nga xam doo xam yana ci dugg di dévier nit ñi saan mu wax ma ko ne am ngeen ci responsabilité bu mag ci la ma nuyoolee ay mbokk yoo xam ñu nga ca Amérique du Sud am na ñu nekk Argentine. Mhm. am fa ñu dëkk Pérou. Mhm. am ñu dëkk Chili. Mhm. am ñu dëkk Colombie. am ñu dëkk Paraguay am fa ñu dëkk Uruguay. am ñu dëkk Venezuela am ñu nekk Mexique. dégg nga dëkk yooyu nga xam ni yépp mooy les pays de l'Amérique du Sud. mu bari ca ñoo xam dañuy dugg ak doole ci l'islam ndax xam ngeen ni léegi mouvement mouride bi. dafa yaatu ci côté Argentine ak Brésil ak yu ni dem léegi nag ñooñu di dugg si te xamuñu li leen war nag. ndeysaan mu gaaral ma ko. ci saa si la ñu créé groupe groupe WhatsApp. tuddee ko Bamba en Castellano mhm. léegi fi ne li sama jot di manqué manqué su ma amee jot mhm. dama fay dugg di ci liggéeyal sëñ tuubaa mhm. ñoom ñooñu nga xam làmmeñu espagnol képp lañ mën a comprendre damay léegi am liggéey bu metti bopp dama leen di jéem a leeralal mbiru sëñ tuubaa ci làmmeñ woowu ñoom ñëpp luñ ci soxla ci seen i laaju diine mu leen koy leeral day sax dëgg la waaye tey xale yu bareen ca am Pastef dëgg la di ma topp ba guddi di ma woo di seen diine nga xam ne ñeen woon dëgg la kon bi dafa toll foo xam ni faaw ñu xam ni mbiru sëñ Touba mi du ay fo lislaam ju leer nañ ñi la wallaay ndeysaan Serigne doon na ci am na ku la koy dëggalal fii sax kay di wax ne ki ngay wax saalixaat bu baax la te tegu ci ngoog tubaarkalla kon mhm. euh, mbiru sëñ Touba mi mhm. il faut ñu delloo si nit ñi rajaa u jannatin bila taati bi sunnatil maahi bi yaat wururun yaat képp ku bëgg aljana la mhm. di ko yaakaar te nanguwoo jaar ci topp sunna si yanantu bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci ay waru nga nekk sa bopp ngay nax waaye man naxoo man sëñ Touba sëñ Touba nee na layoo ñaari yoon noonu la ko waxe bu ëllëgee yowmal qiyaam yàlla lii lay wax ak man day mm-hmm. dajale jaam ñëpp ni ma ahmadu noo def ak ñoom nee mm-hmm. na su boobaa lii lay tontu yàlla du ma tontuwaat leneen mm-hmm. dama daan ko wax naa ñu dégg ma jëf ñu gis ba bind bàyyi leen la yowaata kenn dëgg la li doomam yi nekkoon xanaa nit mënta jege sëñ Tuubaa ba gën koo jege sëñ Saaliw déedéet nit mën ta jege sëñ Tuubaa ba gën ko jege sëñ Fallu mhm. dégg ngeen sëñ Moodu Moustapha mii taawam mu ni mhm. sëñ Tuubaa ma jur waaye njuba ma doy dëgg la te moo ko njëkk a wuutu defar lépp ginnaaw sëñ Tuubaa neex na lool waaye man sëñ Abdoulaye ngeen mu ni bari pexe nekk ci mhm. jub koo gën a wóor ndax fa muy mujje dëgg la sëñ Saaliw dégg ngeen fii mu wax nit ñaari biir la am dëgg la biiru boppam ak biiru bàmmelam biiru boppam bu mu nekk yitteem yàllaa ko sàkk dina ko jox lu mu ko warlu biiru bàmmeelam na yitteem lu mu fa deful du ko fa fekk dëgg la te ñii ñoom sëñ Tuubaa leen meññ mënoo leen a gën a jege sëñ Tuubaa dëgg la dëgg la kon nag dëgg la am na ci lool di ko wax nit ñi ñu xam ne sëñ Tuubaa njub la woote mhm. lislaam la woote mhm. alquran ju wér la woote mhm. sunna su leer yar ay taalibe ma ki magam dëgg la gërëm ci la la gërëm tubaarkàlla jërëjëf sëñ Ablaye Diop Bichri euh, benn parenthèse la commencé guñu émission bi de benn parenthèse la bu ñu doon ubbi rek euh, muy lu am solo nii sax lañ koy doxalee di ko continuer ndax dañoo bëgg orientation yi mu gën a euh, dëgmal njàngale mi ndax euh, bu dee bëgg gi am na bu dee bëgg gi rek am na di sëñ bi digle ci sëriñam am na nun ñëpp a bëgg sëriñ bi di ko dund waaye dafa am loo xam ne teggil sëriñ bi tuuma ci nun la te nun noo koy teggil suñu ndax moom set na wecc du début à ba fii may wax ak yow mbubbam mu weex mi du am tache tomb du ko am yàlla atte na koog waa senegal atte koog waa àddina fii lañ ko jëlsee yóbbu ko fii lañ ko dellusiwaatee fii lañ ko yóbboo gànnaar fii lañ génnee àddina fii lañ ko denc fii la des ba tey jii fii la woote lu mu amit fii la ko amee yàlla àtti na ko ñëpp yàlla mënoon na ko yóbbu Gabon door koo jox li mu koy jox mënoon na ko yóbbu ko diwaar joxalam ko ñu naan sëñ bi mbooloo mam am yëpp la ci ab ay ivoirien la yàlla léppam fii la ko defele fi mu ko tàmbalee defalu ko ko fenn fii la ko defee original euh, sénégalais mooy sëñ Touba cent pour cent bu raxul dara waaye léppam fii la lim yorit lépp fii la kon nun nooy sagal sëñ bi ci sunu bopp mooy lim bëgg mooy nun nu jàkk nun nu baax nu mel noo xam ne ku nu gis rek ah waaye nii fu nu jógee loolu lépp nag ci baax la te doole ko xam naa nag dana ñëw incha allah ñu ngi ziare sëñ Abo Diouf eh, moom sëñ Laay Diouf moom sëñ Cerno Diouf Lambaay mi ngi topp jataay bi xam nga day waajal bis bu am solo le 19 le 19 juin bi fële ca eh, parcelle Euh, ñu ngi koy nuyu baax muy sunu xarit nag di ko bëgg sëñ Touba. Euh, bis bi incha allah ñu nit danañ ca dem incha allah daa tombeek bisu sëñ Ablaye bi nag waaye euh, danañ fa ñëw ndax moom sunu xarit la sunu lépp la sëñ Mourtala Mbacke Noflaay maa ngi koy ziare moom magam sëñ Saliou Mbacke di ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex samedi sëñ Mourtala. ca Kër Ndiaye Lo. dëgg la foofa ñu dëgg la sëñ Ablaye ku baax a ngi noonu ndeysaan ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare. Eh, sëñ am sëtu Mbàkke bu mu sëñ borom daaru moom it eh, bisam bi xam ngeen ni incha allah ca Pikine eh, ñu ngi koy ziyaare baax a baax di ko waajal ak màggalu njar màggalu sëñ Mor Dia. ñu ngi ziyaare sëñ Saliou Dia sama xarit boobu ñu nekk doon ko sëñ Saliou ñu ngi koy waajal baax suñu invité bi nag sëñ Ablaye damaa xamul ku koy sim bi damaa yàppale daloon ci ci eh, kër cekkeen yeeg kër kër kii mbayeen yeeg cuuneen yi eh, tubaarkàlla waaye nag moom eh, sunu jëwriñ la lu mu def nañ ko ko jéggal ndax xam naa bis bi muy waajal la 19 moom itam gaawu Euh, fële ci jàmm gën muy bis boo xam ne nii xam nga ni bis bi sëñ Mamor Mbaye mii moo daan yor sécurité bi man dama bëgg ren sëñ Ablaye bu ñëwee nga joxaat ko sécurité bi mu taxaw fa ndax temps yi tuwaar kàll bi nga ne te mën na sécurité euh, sëñ Ablaye sekk fële ci jàmm gën xam bis bi def na ko yaat yu bëree bare bëri waaye moom mii balaa ñu koy dalal moo war a nekk bisu jàngkat yëpp moo war a nekk bisu ñëpp ñëpp ñëpp ndax ku ne da koo ameel àllarba ñëpp ndax dafa dimbali ay rakam mhm. wan leen yoon xàllal leen ko mhm. te moom jëmmam ji maa ngi koy wax léegi avant muy ñëw ñu ngi koy siyaar baax di ko dalal. Mm-hmm. Euh, man moom dafa am beneen relation particulière bu ñu am man ak moom. ndax mm-hmm. sëriñ son bi mi nga xam ni fa lay mm-hmm. xam ngeen fukki fan yi ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum 1991. moom mii la sëriñ son yi bu woo. xat xaama xayrul basari la ko wax. nag koo wax rek mu jug di ko jol booba ndekete ñaari fan ak des sëriñ son yi bu dem. fukki fan yi ak juróom ba ni sëriñ son yi bi ngi yëkkati. nga xam ni dafa dundal laylatul xadar ba ca ëllëg sa mhm. sëriñ Soy bu dem aljana dëgg la nga xam ni ku am wàccuwaay la ci kër sëñ Soy bu la dëgg la njabootam gépp am fu ñu ko teg ngir dëgg la njàngam ak wér gi Seex mhm. Muhammadul Murtada Xaadim Rasul mhm. noonu la bëggee woon am njàngam dëgg la sëñ Saaliw noonu la bëggee am njàngam dëgg la mu jël rakkam yépp taf ci moom ku ne mu jàppale la ci njàng mi wan la aw yoon tette la ba nga toll tey fépp takkastalul kenn dëgg la kon nag su amee bis boo xam ne da koy waajal ndax mhm. xam génn ñu ngi jëm màggalu daaru salaam le 30 mhm. war na képp ku jànkatu xasida mhm. nga dëkk ci bis ba taxaw fa def participation nag zaahir ak baati ñaar yëpp nga dikk ci dëgg la waxuma la rek dikk jàng yëkkati waaye kuy ñëwaale am loo nuyu dafa nekk farata ci ñëpp sëñ bis bi sax jikkoom ma bis bi sax damay bañ euh, da baax rek di def appel solennel waaw waaye mën dama bëgg képp koo xam ne ni mës ngaa déglu xasida ak koo mën di déglu ci jànkat yi muy neex ci yow nga sol saw daal dem baa nga laajte numéro Sëñ Abdoulaye jëflante ndax moom dafa am récompense bu ñu ko war a fay ndax ku doomi Sëñ Tuubaa daan déglu njàng mii bu njëkk ba bant ngay teg na ci digg bi takk micro bi Sëñ Abdoulaye daf ci indi civilisation civilisation mooy xaar xaar ma yegg daf ko dafa indi civilisation mooy sol lu baax toog di jàng xasida nga tiim ko araf yu wér daaj bu neex nga xool ko waxuma nag njàngum léegi parce que léegi jàng ak nabiyen moo am waaw léegi daa am jàng am nabiyen waaw jàng nag da ngay nekk jàngkat wala soit nga nekk nabiyen ñaar yooyu waaye boole ñaar yi mu munul ne moom jàngkatu xasida la forme ci ay nit ba ñooñu forme ci ay nit léegi laa koy waxtaan ak sañ Xaadim Guèye hmm. mu wax ma ci yu kéemaane kéemaane kéemaane te sëñ Ablaye sëñ Ablaye sëñ Ablaye mi ni mel nii la mel de nii la mel dafa ah, baax amul yitte ju muy wax nit mënut demal boppam sëñ Ablaye lu mu yaakaar naa li muy wax mu dana ko mën a seede waaye ku mat a jàppale la ku mat a taxaw yàlla gën a taxawu loolu moo waral ñu dalal ko tey eh, fas yéene séq ak sëñ Ablaye njàng mi eh, maa ngi nuyu sëñ Ibra Sarr Guèye moom itam tubaarkàlla di ko a jàng nag eh, ku am maanaa kàlla Euh, Mamor Mbaye dama ko naan sëñ Ibra Sarr sama xarit la moog sëñ Magay xam naa day jàpp ne moom moom sëñ Ibra euh, waaye maa ngi lay ziare baax di nuyu sëñ Ablaye Loum euh, di ku baax sëñ Bara Fall mu mën a jàng <laughs> ñu am kóllëre ngi nii ah, foo séen di nga séen sëñ Ablaye Loum hmm. di nga séen sëñ Yérim Aaw waaw séen sëñ Ablaye Loum sëñ sëñ sëñ Bara di nga séen sëñ hmm. Magay mais waaw waaw kay sëñ Yérim Aaw ngoog kon moom jeex na ñii la ñu liggéey ci xasida yi sëñ Touba yi moo tax xam naa sëñ Yérim mii tey loolu ko ni ndax jànkat bu mag la ñu di ko wër di ko aw waaye lii mooy woyof lii mooy baax hmm. te dañuy wax ni ku toppewul kenn du la topp ku naxewul kenn du la nax lu ñu jiwul du mën a sax ku farluwul sa lépp neen eh, loolu nag jàpp naa ne mooy lii nga def tey ñu ngi leen di ziare baax sañ Baara eh, di leen ndokkeel balaa sëñ Ablaye ubbi sañ daam eh, dañ naan coow bëggoon naa balaa sëñ Ablaye ñëw ñu barkeelu Cheikh Ablaye Dieye fàttaliku ko waaye dañuy teg xasidi gi ñuy bëgg a waxtaane xam naa ne dana xat ci waxtu wi ndax 22h21 moo jot te 23h lañ waroon arrêté